bu police muy rek jibi eh, Sidi Mokhtar Touré eh, ci àjjuma ji ci rek eh, ba muy jënoog taskatu xibaar yi daal dina ci nag yikki wàlle xamle rek ne Gambia police force daal di nañu rek dajale lu toll rek ci téeméeri million ak juróom-ñeent fukki ju nekk juróom-ñaar maanaam rek téeméeri million ak juróom-ñeent fukki junne ak ñaar yu toftal téeméeri ju nekk ñeen fukk ak juróom-ñett ak juróomi téeméer rek fanweer ak juróom ci rekk ab revenu ngir rek nguur gi muy rek gouvernement bi ci. juróom ñetti weer yoo xam ne rek daal dinañ ko ci dajale moom nag IGP di Sidi Mokhtar Touré eh, mi ngi xam ne loolu nag ci ba muy janook taskatu xibaar yi ci àjjuma ji ci ni ko rek nu mu koy defee eh, ci boobu janook taskatu xibaar yi muy rek di gën di xibaar eh, askan wi jaarale ko nag ci tasu taskatu xibaar yi su ko defee rek ci fu police yi toll ak ci lu ñuy def ci wàllum xeex li nga xam ne rek moo di ñaawteef ci nooy nag moom Sidi Mokhtar Touré daal dina ci posé wu tamit teg ci nag di xamal ñi nga xam ne rek ñoo di gambeen ci di teg ci ne am nañu jumtukaay yu bees ngir rek gëna mëna jekku li nga xamné moy xex ñawteef ci fi nga xamné rek euh, modi ci bir réew mi euh, filé tek ci itam nak daldi xamlé euh, ci lu jëm rek ci walum ñi nga xamné itam nak dañuy dimbali euh, ñi nga xam ne rek ñoo di policier ci wàllu li nga xam ne mooy jumtukaay wala ci wataak yu ci demee noona euh, loolu itam daal ni ci leeralal askan wi ci rek ne police bi du mos a jeng te itam du mos a am kumba am ndey ak kumba amul ndey lépp rek lu xam ne dafa war a tege ci yoon ci ni ko yoon santaane euh, ci noonu la ñuy rek tegee yi te nag duñ ci seet duñ ci seet ami wala ñuy seet ci ki nga xam ne rek moo di Demba mi ngoog police yi daal euh, xamle nañ ne dajale nañ lu toll ci téeméeri million nga ko juróom-ñetti fukk ak euh, ñaar yu toftal fukk ak ñaar yu euh, ci li nga xam ne mooy koppar ngir réew mi ci juróom-ñetti weer. waaw lu am solo la ñu ngi ko gërëmaat bu baax ay ji ci initiative bu mu bu mu bu mu jël hmm. di gën a wax ak askan bi dafa am solo hmm. parce que lii mooy ñaareel yoon buñ ko tabbee. waaw IGP ak léegi mu koo def. Hmm. lii nag dafa am courage courage bu am solo la parce que nit bu ñu la dénkee mm. euh, dafa mel ni euh, nga wax nit ñi li nga def ak fi nga jëm ak lan mooy jafe-jafe yi dafay gën a indi leeral te loolu dafa am solo bu baax a baax ñu ngi ko ciy gërëm ñu ko encourage euh, pour mu pour mu pour mu def loolu parce que dafay dafay dafay wone ne fu mu jëm ragalul fa waaye fi mu jëm xam na ko. Mm. you xam nga kilifa bu ñu la dénkee dara. Mm. nga cee def li nga xamante ne tey. askan wi ngay warlo no bu dara su fekke li ngay def tamit dafa jar ci yoon da ngay sawar sa pour ñew wax you know ci ay wër yim ñew ñep gis nañ ciopeku yu am communication def ko def ko def ko yittel gis nga bu fekkone update kesse piaro mu mu ci def liggey bu am solo create na page bolé ci journalist yi mu ci constant update way facebook on social media bi mu ci communicate bo taxut there's other development yu am yi nga xamante ne loolu ñoom administration bi ñoom high command bi ñoom ñoo ko xam so mu gather all that information ak seen plan si mu ñëw wax ci Gambian si I think that is very assuring te danañ ko ci encourage bu baax xanaa uh, comme ñaa ngi doon ko waxee ci suba one hundred ten million wala wala moo doon lu ëpp woon exactly moo doon almost two hundred million uh, buñ ko amee uh, ci yenn yi nga xamante ne tey ñu ne nguur lañ ko jox ba xaalis boobu bu dul yëpp sax am na lu war delluwaat ci ñoom parce que mm. ñu ngi am ay jafe-jafe mm. te lim na jafe-jafe yooyu te loolu tamit encouragement la mm. wala courage la pour moom mu génn wax ne police yi lu ñoo dund ci jafe-jafe lu bari ci service dañ dee nappa nappal affaire yi ñëw fii we only need support and they don't directly mention what they need or some of the challenges yi nga xamante ne dañ ko encounter so moom this time he went further to make sure he outlined the challenges they faced donte ne euh, appreciate na te wax na lu nguur gi nekk rek def support bu ñoo jox police bi. Mm. but there's still mm. room for improvement and that is needed wax na uniform wax na GS yu ñu soxla wax na ba firearms to protect the personnel. Mm. and that is important so we have to uh, give him a big tap on the back. encourage ko and then pour ñoom media moom su defee lu baax dañ ko wax ne noonu la bu buñ déggee tamit otherwise wala gis ko and we'll sit here and tell me no IG you have to do so we loolu la daal mi uh,